ñi nekk ci biir Sénégal di doomu sénégalais yi dinañ gis lu état bi teg ci mécanisme pour ñoom tamit seen biir réew mu nekk ay acteur parce qu'il ne s'agit pas nag ñi si bitim ñi si ñi jugee bitim réew kese ñooy ñëw tedd ci réew mi te sénégalais yi des ci loolu et on défendra avec véhémence les intérêts du peuple sénégalais kon destabilisation économique boobu na seen xel dal li ci des mooy destabilisation sociale moo bëgg ñu taxaw foofu parce que lu sensible la mooy jaaree ci diine jaaree ci gëm-gëm jaaree ci waaso te te am na ñu koy waajal pour ne gouvernement bi nga jëm ko monter contre ñële mais loolu du jàll ndax président de la république fu mu déplacé wu def daraawam dem ci kër diine yi gis ngeen ni ñu koy accueillir gis ngeen le premier ministre fu mu dem nit ñi ni ñu ko fay xaaree cofeel bi ñi du dëkk ci cité religieuse ak kilifa am ci moom ndax président de la république ku wax ñu ne yar bi dal bi kersa gi jub bi premier ministre ku wax ñi ne wax yar gi waaye courage bi parce que courage nag dafa bokk ci ay valeurs islamiques dafa bokk ci ay valeurs religieuses au delà de l'islam yoo xamante ne dafa war a caractériser un bon musulman mais un bon croyant en général kon la destabilisation sociale sera vouée à l'échec xam nga li ci des mooy la déstabilisation politico-militaire loolu moom waxuma na ñëpp tëdd nelaw na ñëpp vigilant am nañu réew boo xam ne c'est un pays debout du arme bu ñuy yëkkati léegi mais réew mun na fa toll parce que am na ñoo xam ne moom seeni intérêt moom jalal na leen Sénégal lu ko waree mooy événement mars 2021 nga bëgg a yëkkati benn dossier ñëpp ne la boo ko yëkkatee réew mi tàkk nga ne da nga koy def par force gis nañ ko ci juin 2023 donc bu ay millier de sénégalais di dee ci loolu nag ngeen gis entreprise yooyu xam nga ñeen ñooy acteurs yi am na ay acteurs yoo ñi xam nañ leen ñu affiché wu mais am na ay yoo xam ne c'est premier Ousmane Sonko wala président Bassirou Diomaye Faye nañu bàyyi xel ne déstabilisateur yooyu mun nañ utiliser couverture médiatique naan journaliste nañ tey ngeen dégg leen ñu wax am na si ñoo xam ne langue opposition yërëm naa leen looy opposé yo nguuru Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko looy opposé yo nguuru Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo xam ne ñoo xam ne compétence ñoo ci raw jub ñoo ci raw compétence ñoo ci raw jub ñoo ci raw da dañu koy laaj moom ex richesse am bi mu amoon parce qu'il n'est plus riche parce qu'il n'est plus riche et jàpp na ne richesse mooy seul mbir bu mu war a targewoo et jàpp na ne richesse mooy seul mbir bu mu war a targewoo man entreprise kaay na jooni man entreprise kaay na jooni jooni déggati ngeen ko kon boo naan entrepreneur laa joni déggati ngeen ko kon boo naan entrepreneur laa dañ ma dañ maa war a jox réew laa ah, dañ ma dañ maa war a jox réew yow lu say entreprise doo ko yore ñu lay xamal ne ñi ngay attaqué du ñu sa morom nawloowuñu la du ñu la mës tontu ñun ñi ñoo lay tontu ñun laa JPS ñu lay xamal ne jël troisième présidentielle élection locale janvier deux mille vingt deux Pastef fal ay dizaines de maires législative bu juillet deux mille vingt deux passé fal vingt quatre ba vingt cinq députés xawoon na imposer cohabitation assemblée nationale mars deux mille vingt quatre Pastef am cinquante quatre pour cent dès le premier tour et ses alliés lii mooy bilan wu en dix ans yow sa bilan en deux mille dix huit bañ ko créé ba léegi ci weer yi dañ ko créer woon six ans. parce que yow bi ñu lay créer sa mouvement boobu parce que benn élection rek la bokkoon boo bokkul kon élection yi mu wax ni yëpp da cee bokk muy ñeenti élection locale 2022 damay wax sénégalais yi kii wax muy Bougane Gueye Dany lan la ko sénégalais yi nattal ci locale 2022 ndax ñun département de Dakar nañuy defee politique commune yi fi gën a représentative yi fi gën a représentative Mermoz Sacré-Cœur bokku ci commune bu am solo la ñu ngi fàttali ne commune u Mermoz Sacré-Cœur ci élection yi ñu jugee nombre d' inscrits yi c' était vingt quatre mille deux cent soixante et un inscrits Bougane Gueye Dany nekk candidat à côté de neuf autres candidats pour conquérir suffrage u waa Mermoz Sacré-Cœur vingt quatre mille deux cent soixante et un personnes ñoo inscrits pour voter foofu ba ñu tamee ci vote yi onze mille cinq cent soixante cinq waaye ñi nga xam ne ñooy nombre de suffrages valablement exprimés onze mille six cent soixante dix huit la ci li ñu wax xam nga ñaata ñaata voix la Bougane am six cent soixante quinze voix boo jëlee six cent soixante quinze voix mille six cent soixante dix huit voix xam nga ñaata la pourcentage zéro virgule cinq pour cent lii la la sénégalais yi nattal sénégalais yi teg nañ la sa place. waa moo Sacré-Cœur teg nañ la sa place te muy commune bu ndaw ci biir dakaar mënoo ko gagné zéro virgule cinq pour cent nga am sur les neuf candidats yow sixième nga jël benno ñoo la raw Yewwi ñoo la yow ñoo la raw partie socialiste amoon nañ liste ñoo la raw gox yu bees ñoo la raw waaye am nañ ñu ñuy wax alliance des valeurs éthiques et citoyennes ñooñu sax ñoo la raw avec nga jël sixième kooku moo taxaw tey di di tëkku le président de la république Bassirou Diomaye Faye am naa Diomaye moom malheureusement du du nelaw lu bëri mais bu doon nelaw moom xam naa day biddanti parce que loolu mënu ko teree nelaw mais bi ñu jógee ci local yooyu même local yooyu nga ne candidat nga ville de Dakar mënoo sax defar liste ñu teg ci juróomi weer kaay ñu dem législative juillet 2022 munoo am parrainage mënoo am parrainage ay coalition yu mel ni bunt bi ma leen di saluer au passage am nañ parrainage yow mënoo am parrainage législative 2022 amoo parenage ñu jëm mille vingt 2024 mënoo am parrainage waaye yéen kii ban poids politique la am lu dul yor benn groupe de presse bu xëyee suba ba ngoon ñu koy xalamal muy wax di fëgg dënn te fu jongante ñëwee bu demee bu dee parrainage la du am mais alhamdulilah ren amul parrainage nañu dem xool ba xam est-ce que dina mën a jàllee plus fort bu dee tête de liste la bu dee am na am na fit sax mu ñëw département liste départementale bu Dakar pour nekk tête de ci liste boo xam ne da ciy bokk Bougane Gueye Dany les remis à ta place depuis deux mille élections soo demee sa yow li ñu lay natt yow personnellement mooy yow sa pois au Sénégal six cent soixante quinze voix la am te man leer na ma ne wàññeeku na loolu mooy sa poids politique suba ba ngoon stratégie bi mu jël mooy am na ñu ko xelal ndeysaan am Sénégal boo jëriñ ñoo xam ne dañ lay indi en erreur ne la Ousmane Sonko li mu am li ko may yëpp mooy ni mu doon attaqué Macky Sall dafa am courage opposition argumentée et documentée lépp ci xam-xam nañ ko doon teg mooy parti bi ëpp cadre Sénégal ba ñuy réformer code ñëwee bu mille 2016 Pastef dañ cee bokk indi seen xam-xam président Pastef. nekkul fi di coo rek dafa bind livre pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation 256 pages man livre boobu laa njëkk liir lire moo ma ba man ma dem def master en droit des énergies et des mines parti boobu noonu ñooñu noonu lañu opposé woo ba dem ba Macky Sall dem ba mer parce que mu leen topp moom ak régime am si débat wu yàgg na leen woo ci débat ci plateau ndax ku jàkkaarloog moom plateau mu effacé. ñu fekk na ko ci terrain wu ko ci ay mërs ak jug pour éliminer ko comme un adversaire politique jaar par la justice loolu moo tax Pastef jug nag taxaw woote résistance kon résistance u Pastef ak résistance Ousmane Sonko du résistance bu Bougane Gueye Dany de il faut mu leer résistance yi du benn ci contexte waaye résistance yi du benn ci façon def sa point de presse di ma rey mbaa ma rey la non Ousmane Sonko ba muy taxaw naan di nga ma rey mbaa ma rey la dafa woote Kër Massar ñoom jëy pro génn ay milliers de sénégalais fekk si ko te joxuñ kenn cent franc yow wooteel suba théâtre national dañu Sorano ñu xool ñaata ñoo lay fekk si. wooteel suba foyer bu Grand ñu xool ñaata nit ñoo lay fekk si kon résistance président Ousmane Sonko bokkul ak résistance su Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko n'est pas et ne sera jamais ton alter ego il faut loolu leer. pour ku ne xam kan mooy sa morom di wax nag ne am na ci loo xam ne jàpp na ne stratégie la parce que wax ji bu bëri bi yëpp ak virulence bi yëpp parce que am na lu mu jàpp ne moom lañ koy reprocher su dee fee mu ne kaay leen ngeen tëj ma ci wax pour ma victimiser wu Bougane Gueye Dany man maa lay laaj lan nga wax ba bañ ku la tëj ci jëf lan nga jëf ba bañ ku la tëj ci wax ba bëgg ku la tëj ci wax lan nga def sur des faits yu ñu lay reproché ba bëgg ku la tëjee wax mais bu ñu la waree tëjee jëf jëf nañ lay tëjee kenn du la tëjee wax man maa la wax loolu c'est extrêmement important li may wax moom xam na ko kon nag yamal sa place nga liggéey ba mun a am parrainage entreprise yi nga yor wala alal bi nga amoon ndeysaan parce que buy wax da ngeen di sentir ne en lay waxee moo tax psychanalyste yi dañu war a xool nit ki est-ce que parce que day day souffrir d'une maladie grave et maladie bi lan la mooy maladie wu haine ak jalousie mooy mais Bassirou Diomaye Faye gis nga ni mu waxee démb parce que non sa jeune la maa maa ko maa ko magee ñetti at. Ousmane Sonko ñoo bokk génération pour pourquoi ñii sénégalais yi topp leen xër ci ñoom bëgg leen fonk leen ñu crédible fu ñu dem ñu tijjil leen man mënuma am loolu te man man jàpp naa ne am naa alal loolu Sénégal doo ko fi mës amee parce que crédible ci bëtu sénégalais yi te sénégalais xam nañ ñu tax crédible xam nañ la moo tax nga dem bay mer bay saaga parce que lu tax sénégalais yi nanguwuñ la wóolu ndax suñ jàpp ne opposant nga loolu ñun ñun mënuñ ci dara kon nag fi ñuy daanalee ci chapitre Bougane parce que benn chapitre la woon bu ñu war a clôturer pour jàdd ci leneen mooy Bougane Gueye Dany yamal sa place boo génnee suba huit heures huit heures quinze ñu def point de presse ñu JPS tontu la man maa la wax loolu et on te dira ñi nga bëgg a jàkkaarloog ñoon duñ mus a nekk sa alter ego na nga xam ni li la war mooy yor say entreprise ci façon bu sell ba sénégalais yi wóoru say entreprise waaye nag li la war mooy nga liggéey ba mën a am parrainage bis boo amee parrainage après sénégalais yi dinañu la mën a bàyyi xel nga war a am voix au chapitre parce que nag démocratie c'est la loi de la majorité yow mënoo jàll parenage nga bëgg a am voix au chapitre mais même dans les sociétés africaines traditionnelles balaa ngay mën a wax nga mën a am xam-xam mais nit koo xam ne buy wax dafa doyadi doyadi doyadi il est d'une vacuité intellectuelle extraordinaire il est nul il faut le dire du xeebeel mais waa ji dafa cuune ndax mënu la aligner benn idée boo xam ne ça tient ci kanamu benn esprit mais bopp bi moo rangé wul ngeen baal ma ci wax non c'est ça parce que bopp bi moo rangé wul mun ta wax ñaari ñaari ñaari argument yu dëgër munoo def calcul sax bu jaar yoon un plus un xamoo ne égal deux après nga bëgg a taxaw nga ne yow yaay jàmmarloog régime bii nga xam ne booy énarque yi taxaw yi non man yërëm naa kon nag yamal sa place li ma gën a yéem nag ci lim wax démb mooy quand il dit que Macky Sall moo ñu moom laa mere parce que moo ñu jàllax booy yi nga xam ne munuñu kon moom ñun ñun Macky Sall moo ñu fal parce que ñun Macky Sall ñaar lañ mun terewee falu wala bi ci jiitu mooy Macky xeexoon ak ñun ba duñ bokk ci élection yi loolu la jéemoon mais mucc ko am parce que xañ na ko président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay nekk candidat kon dafa bëgg ne Macky Sall dafa waroon def tout ba ñun duñ nekk candidat par une élimination judiciaire ou politique. kii est-ce que démocrate la wala Macky Sall kon jour élection yi dafa waroon def tout pour ñun bu ñu gañee mooy lan dëpp le suffrage populaire parce que ñaar yi moo fi am Macky Sall bu ñu mënul tere nekk candidat ñu dem élection Macky Sall mënul tere ba 54 pour cent yi am parce que moom moo taxawoon ne 54 pour cent yi ci la bokk kon ça veut dire que sénégalais yi ñoo voté pour cent yi il l'a admis mu taxawaat ne Macky Sall moo tax ba ñun ñu falu kon Macky Sall moo ko mere te mu taxaw naan ay nitam ñoo ñu voté ci ay localité xanaa moom day mere ay nitam. après nga taxawaat nga ne Macky Sall nga mere mel ni Macky Sall noonu nañu teree falu kon yow day wane yow esprit bi nga am ci démocratie mooy nit ku yor pouvoir dafa war a xañ ku ko neex du falu parce que kii incompétent la musuma gis ku cuunewee nii musuma gis une telle inculture democratique et politique kooku taxul ba kenn dellu ginnaaw kooku président Ousmane Sonko. président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ñu ko tontu ndax taluñu ko ils sont des enjeux stratégiques yoo xamante ne franchement ñun ñi sax waruñu ko woon tal waaye am na loo xam ne du ñu ko bàyyi parce que il de notre responsabilité parce qu'on nous a responsabilisé à la